أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف العالمين سيد الأولين والآخرين nabiyu rahma alladi arsalahu llahu rahmatan lil alamin sayidina wa xabibina wa maulana muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim amma baadu ayuha almushahiduna alkiram fi télévision sunu label tv nuxayikum bi taxiyati alislam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 bokk santati sunu boroom mi nu ko may julli sëlmal ci sangu àdduna ak laaxira sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam nuyu leen ziyaar leen ndokkeel leen sàkku ci yéen ay ñaan waaye ñaan sunu boroom mi am jàmm am yërmande am barke yal nañ ko yàlla bokk defal mbokk del seeti nañ ci suba si ni ngeen ko miinee ci seen émission Jilsatu Nabi di jataayu sayduna Muhammad wi sallallahu alayhi wa sallam ndokkelaat ñëpp ci weer tedd wi di weeru soobaan giinu ne nga xam ni yonent bi daan na wax ne naqu abdaanakum fi sawmi soobaan li qiyaami li siyaami ramadaan euh, setal leen seen bopp nettoyé leen seen bopp gaaw ci weeru soobaan ngir weeru koor wii di ñëw mbokk yi ñu ngi ci weeru soobaan yal na yàlla setal nu yal na yàlla sellal nu yal na yàlla jéggal nu yal na yàlla yërëm nu ba weer wii ñuy tàbbi di weeru koor yàlla mën ñu ko nangul barke sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam waaye waxoon leen démb ne weer wi am na guddi gu tedd gu ci ne ñu tuddee ko nisfu soxbaan guddi gu am doole la parce que nabil Moustapha wax na ci maa ngi la koy wax démb guddi gi ku yàlla dimbali bëccëg gi nga woor ko muy nisfu soxbaan woor nga bëccëg gu bëri yiw waaye ku ci yàlla dimbali it nga am cawarte naafila ca guddi ga ñaari rakkaa fukki rakka ak ñaar fukki rakka ak ñaar kay fukki la ak ñaar ci guddi gi muy fu soobaan gi ku yàlla dimbali bi nga wooree bëccëg nga am cawartay naafe la fukki rakka ak ñaar rakka bu ne nga jàng ca fatiha benn yoon ak qul huwa allahu ahad fukki yoon nee na yëgal ni boo sëlmalee ci si fukkeelu rakka ak ñaareel ba soo sëlmalee rekk nee na yëgal ni yàlla nettuwaaye na la ba set wicc nettuwaaye na la ba nga set wicc taqatoo benn bàkkaar taqatoo benn bàkkaar fi nga sëlmalee yàlla bal na la mbooleem bàkkaar yi nee na dinaa barkeel sa dund yonent bi nee na yàlla dina barkeel li des ci sa dund loolu na mbokk yi guddi gaa ngi noonu naafilaat yaa ngi noonu koor gaa ngi noonu gudd ko am doole la waaw kon nag noonu fexe góor góorlu del siwaat nag concentré wu ci sunuy jaamu yàlla xam ni it coow li bari na bir wi bi bari na waaye nanu yëg ni nag ñun ñëpp dañuy dem ci kanamu sunu boroom mu laaj ñu sunuy koor laaj ñu sunuy julli laaj ñu sunuy azaka laaj ñu sunu dund gi ñu doon dund ak nit ñi mbokk yi wax naa ko keroog li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan sunu borom daf noo bind wàcce ñu pour vérifier kenn ko ne ci ñun ana yéen jëf lay jëf jëfe mi muy jëf rafet na wala rafetul bokk yi nag critère u ibaadu rahman daf ca bokk ngay fexe ba say jëf ba mu nuroog jëfe wa safara xam nga wax naa ko du yàlla bu ma dem safara du baat bi la de alladina yaquluuna rabbana asrif anna adaba jahannama inna adaba kaana garaama du ñaan gi rek du asrif anna adaba jahannama rek du yàlla wëlbatil safara ba bu bu ñu buñ ca dem waa déet déet day fekk yàlla boo jëf jëf yu yóbbu nit safara loolu mooy ñaan gi wax naa ko ba tàyyi ñaan dañ koy accompagner yàlla bu ma dem safara day fekk yàlla nga am melokaanu jëf yu yóbbu nit aljana ma taxoon ma waxoon la ni sunu borom nee na ñii ñaan bañ a dem safara ñooy ñi nga xam ni fooleen fekk foo fekk ñi ngay jëf-jëf ju baax parce que bi yàlla ne wal asri inna al insana la fi xusri xam nga loolu mooy ci gàttal rek maa ngi giñ man yàlla ni nit ñi li ci ëpp safara lañ jëm loolu lay firi maa ngi giñ man yàlla nit ñi li ci ëpp safara lañ jëm moo tax bi aaya bi wàccee ñëpp a tiit saxaabatul kiram sa dañoo tiit waaye yàlla teg ca ne illa alladina amanu wa amilu ba mu des ñi gëm ba mu des ñi gëm ñooñu moom duñ dem safara ñi gëm lan mooy gëm yàlla mooy def ay santaaneem bàyyi ay tereem lii mooy gëm de lii mooy ngëm de xam nga bu ñu defee ni rek nag santaane yàlla yi xam nga dara rayuñu lu dul li ñu jàpp ne ñun musaa santaane yàlla yi julli rek la ak woor waaw xam ñu ne wax santaane yàlla julli la woor dem màkka ah, Sénégal moom santaane yàlla yi njett yi la fi julli la woor dem màkka même azaka yàlla dañuy foog santaane ko <laughs> azaka dañoo foog benn paa moo santaane non non non mbokk ku bëgg a xam santaane yàlla da nga dem xool alquranul karim alquran li ci nekk yëpp ay santaane la ak ay tere waaw imaginal baqara ba minal jinnati wa naas nga ne julli lañ ci wax woor ak a dem màkk ñun daal ñett yi mooy sunu jaamu yàlla ñetti yi dong xanaa sax mën naam rax nañ ci dem Touba ak dem Tiwaawan ak appel bi mën nam yooyu lañ ci rax bokk yi nanu xool yi yàlla santaane yàlla santaanewul ñuy tuur deret daf ko xaraamal nanu bàyyi deret deret yi ñuy tuur dafa bokk ci jëf santaane yàlla bañ a tuur deret wala taqtulu nafsa allati xarama allahu bu leen rey kenn mbokk yi ñiy rey nanu bàyyi rey nanu bàyyi rey ku xamoon li ci bakkan ni mu diisee ku la reyloo doo rey ki may reyloo lu tax ma koy rey lan mooy cause bi yàlla nee bu rey bakkan lu dul sharia moo la ko reyloo sa waay jàmbur yi ñu téedi tuur nii mel ni kuy mel ni ku yor ay xare ki bëy nag du noonu ku ko def boo demee ci kanamu yàlla mu duma na leer de sunu borom moo ne wa man qatala nafsan bi xayri nafsin fa ka annama qatala naasa jamian ku rey benn nit ci tayeef te defula dara deful dara ku ko rey mel nga ni peuple bi nga rey peuple bi yëpp rendi nga leen atte woowu la la yàllay atte waaw ku rey nit ñëpp la lañ koy atte atte fu mu jëm moo tax sunu borom ne ku rey jullit moom ta tay ko ñu naa mu ne gàddul say bagage safara nga jëm wa man qatala muminan mutaammidan ñu ne ko mu ne fa jazaauhu jahannama ku rey te tey xam nga rey yii oy man d'accord naa sax ku juum rey nit mais ku tey rey nit sa nañ bàyyi caaxaan yi bàyyi leen bakkan yi leen bakkan yi ngeen di rey ku ray bakkan yow ak keloo ko sant safara ngeen di dem mbokk yi nanu tuub te arrière te maytu sunu melokaan yi ñu mel te dara nag àdduna dong ñu dara te yàlla tax kenn xeexul ngir yàlla kenn ci ñun xeexul ngir yàlla sunu xeex yépp àdduna kuy xeex rek sa intérêt nanu maytu sunu intérêt yi sunu intérêt yi bu taxee ñu rey nit bu ñu demee ci kanamu yàlla dinañu coûter cher de nanu maytu sunu intérêt yi ñuy daw kenn ci ñun génnul jihaat ngir yàlla sa waay léeg-léeg ko naan damay jihaat sama bakkan laa yow sa bakkan ngay jox te doo jug fajar foo jihaatee sama bakkan lay joxe tey woor sax mënoo ko woor ko weeru koor ngi ñëw doo sax woor sa waay nanu bàyyi sunu yii mbokk yi te kenn ku ne respecté sa moroom jox ko cër parce que jaamu yàlla du julli rek jaamu yàlla du woor rek jaamu yàlla bun ko àtte ci dem màkk rek ñëw déedéet jaamu yàlla du màggal jot rek nga dem màggal ñëw du dem gàmmu jot nga dem gàmmu ñëw mbaa appel ba nga dem appel ba ñëw loolu du jaamu yàlla de mbokk yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi fexeel ba bul amel nit ñi àq fexeel ba bul dem àllaaxira kenn di la poñe bari na nag ku dem àllaaxira la nga amoon yépp nga ñàkk ko ngir sa diggante nit ñi mbokk yi respectante bàyyi yéenante safaan wi te yéenante lu baax kenn ku ne ci ñun respecté woo kenn te loolu rafetul de nanu respectante ku ne bàyyi xel sa moroom ku ne nawloo sa moroom ñu ñaan sunu boroom yàlla delloo si ci réew mi jàmm ñu ñaan sunu boroom yàlla delloo si ci réew mi jàmm sunu boroom ne ñi ma naw def leen samay jaam taf leen ci sama kaw moo ñi nga xam ni seen jëf dara dara luy nurook jëfu safara bokk ca suno boroom na giñ ne li ëpp ci nit ñi safara la ñu jëm ba mu des ñeent illa alladina amanu mbokk yi kookoo ci jiitu kooku de demul safara moom mooy ki gëm yàlla te ki gëm yàlla mooy ki toppatoo wax li alquranul karim santaane mu ne ca li alquranul karim tere mu bàyyi ko mbokk yi alquran lii ñu def yu bari da ko artu moo ko tere mbokk yi ku ku mën a góorgóorlu góorgóorlu loo mën a bàyyi nga bàyyi ci mbon te lépp lu alquran santaane bul ne daa diis bàyyi naa ko alaaji maa ga Sëriñ Tuubaa nañ ko def déedéet bu la Alaaji Maalik ak Sëñ Tuubaa ëpp fulla de defal li ñu def ci mbaax mbokk yi loolu moo jaadu ci ñun jullit ñi waxtu wee ma dab maa ngi ci wal asri waaye maa ngi yéen suba daañu dajawaat waxtaane illa ladina amanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri maa ngi yéen suba fii ci jilsatu nabi la ñuy àggale alquran wi di ayat alquran yooyu di suratu asri maa ngi gërëmaan ñëpp di santaat ñëpp ñaan sunu label yal na la yëkkati ko gërëm sunu directeur Hadj Makhtar Silla ñaanal ko sunu borom yal na yàlla taxawu ay mbiram ñaanal personnel bi yal na yàlla taxawu leen jël seen nuyoog seen i ziar teg ko ci loxol soxna Ayda mu yóbbaale ñëpp géew ñaan borom xam-xam yi yal na la mel ni nuy wérelante te bañ di werante sunu mag sunu sëriñ Alxaaji Idrissa Diop bu rahmatullah alayhi tafsir Oustaz Oumar Diop ma nuyu ko ziar ko ndokkeel ko mu yóbbaaleen ma borom xam-xam yëpp géew isa aradtum salaamatal ardi fattabi'u muhammadan wa ali hayatul umami asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waman adallu mimman yad'u min duni llahi man la yastajibu lahu